asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ni ngeen ko xamee rek 100 ci Leewtoo du mën a ñàkk li tax nag tey ñu ñëw fii parce que Medina lañ nag ak ki ñu toogal li ko waral mooy coow li daa bëri fan yi ci diggante Ama ak Modou Lo coow li combat bi taxaw na taxawul ñu ne nag dafa am beneen mbër boo xam ne dañ ko ci tudd moom lañ bëgg def plan B muy Tapha Tine ñi ko yor nag yaakaar naa kii bokk na ci muy Bada Dione ci xale ba tey nii ci di ko encadré comme waa Parcelles wax nañ waa Pikine wax nañ ñu laaj waa Bawol ñoom tamit seen digganteeg Modou Lo wala seen digganteeg Ama John maa ngi lay nuyu di la waaw Babacar ñu ngi lay fay ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sangub sang yi di sant suñu ñaari waajur nga may ma tuuti rek ma wax waaw gërëm rek. waaw maanaam loolu dama dama ciy ñëw sax parce que dama lay jaale. sa wayjur wu jigéen ndax dafa génn àddina fa yi di ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana di la ko jàll di ko jaal tamit sa mbokk yëpp ak waa Bawal. waaw dafa génn àdduna nekkoon koo xamante ni ku mag la ci ñun koo xam ne sunu weeruwaay la woon ci côté bu ne doon nit nit ku ku baax daal daanaka sax kenn mënu la gis benn sikk ci sa waajur. mais waajur la boo xamante ni tànneef la woon wax dëgg yàlla mais nag yàlla mooy def ay dogalam li mu def nit mënu ci dara xam naa ñu koy ñaanal rek. yàlla xaari ko ca àjjana ya gën a kawe ya ci sunu xol la nu tibee ñaan yi ah di gërëm wax dëgg yàlla nit ñi nit ñi yëpp nag ñi mën a ñëw ñëw nañu ñi woote ñeneen ñi woote nañu parce que dina am ñoo xam ne rek dinaa leen ci cité parce que xam nga temps dafa xaw a seer ku départ fii ba Bawol wax dëgg yàlla temps perdu yi ak risques yi wax dëgg jar na noo mosaw ku ci mel ni sunu kilifa Xaadim Sàmb ak sunu xarit Assis Ndiaye mook Baye Ndiaye ak euh, Abdoulahat Ndiaye Jibi Ndiaye xam nga Seeru Fall Matar Ndiaye xam nga ak euh, waa école de lutte Bada Dione yëpp nag wax dëgg yàlla awma seen fay euh, falu Ndiaye waaw Fallou Ndiaye sunu rak sunu xarit xam nga ñëpp daal daanaka boo nekkee di lim da ngay juum ak tafaatin sunu rak parce que ñooñu sax mën nañu ne ci la bokk parce waajur wi li mu doon ci ñoom rek la doon ci ñun mais xam nga ñeneen ñi nga xamante ne nii dañoo ñeneen ñi seetaanuñ wax dëgg niti làmb yi ñeneen ñëpp wax dëgg yàlla woo nañ nu téléphone te xëj na wax dëgg yàlla woo noonu lu rëy la parce que yëg-yëg la parce que it euh, nit lu xew nga dem parce que man wax dëgg yàlla duma dem lépp nag ñi yàlla dogal ñu mën a dem rek ñooy dem ñeneen ñi woote bokk nañu ñu naqar bi wax dëgg yàlla ñu ngi leen ci sant di leen gërëm waaw yal na yàlla nangu ñaan yàlla yërëm mère bi te xare ko aljana bépp jullit mbay guy itam maa ngi koy nuyu sa poulain mais fi may ñëw mooy wax ji seen diggante ak Ama Baldé da ngeen a mu daan leen Pa Abdou Fall woote waat ñu war ko tëgg bañ ñu joxe avance ñu ne waa kër Ama delloo nañu loolu nu mu demee. Ama Baldé day xaj na boo gisee ñu dem ba ko jël mbër yeneen yi ñoo ragal waaye amaa sax du suñu adversaire wax dëgg yàlla xam naa loolu la dem ba ci biir nag mu xam ko. seen adversaire te mu bëre ak daan leen. Oh, xam nga bëre di nga daan nit te fekk yaa ko mën fuuf moo la mën fuuf loolu gis nga ko fi ba tàyyi <laughs> Tafa Gueye daan na fi Ali ñu waat Ali daan ko daan na fi Ibou Ndafa ñu bërewaat Ibou Ndafa daan ko mu bëreeg Ali Ali daan ko ñu bërewaat Ali topp ko euh, presque bëre boo xamante ni deuxième bayit même chose la comme ni ko Ali daane woon rek bu taxawoon it mu daan ko presque. da nga xalaat Ama ak Tapha Tine buñ bëree buñ bëreewaatoon tamit noonu lay dem. Oh, Tapha Tine bi mu bëree ak Ama wallaay wal asim def ko tegul woon mbir looloo tax amaa daan ko man xam naa Tapha bu baax. def ko xeeboon mais bi ko combat dañu ko jëloon sérieux teg ko mbir pire. te moom xam na la taax jëlul ko combat bi. maanaam Ama daal man bëgguma ñu ciy wax sax parce que Tafa noon naa ko Ama bàyyi kook loola parce que Gris Bordeaux mi Abdou Diouf daan na ko fi Tafa Gueye Balla Beye 1 daan na ko fi Yékini saaloo daan na ko fi am na jël yooyu moom mënula ñàkk ci mbër parce que yow yaay dikk waroo bëreek nit ki nga dikkit tegoo ko mber xeeb ko ba mu daan la mais loolu sax ñun yàlla xam na ne gars yi nangu da bëreek ñun waaye Ama sax doonul adversaire bi nga xam ne dara la ci tafaa parce que jëmewu ko fen bu ko daanu nit dem naa xale bu ndaw la daan daanaka amaa daan Tapha Tine rek moo nekk effectivement mais Tapha Tine daan amaa moom wax dëgg yàlla du du du lu ñuy nekk sax di wax wala ñu ci coow léegi su ma la déggee kon daal Ama moom yéene ko man fu ba tey am na keneen ku ne Pikine ñu koy wax Boy Niang parce que balaa may ñëw si Modou Lo ak seen diggante ak Luc Nicolaï Boy Niang dama laaj mënaat seen Bourkhane Wade moom dafa avoué ne que ñoom ñemewuñu Tapha Tine loolu dégg nga ko. booy Niang moom Boy man sama doom la papaam sama xarit la Tafa Kanji mi koy sotti gàllaaj sama xarit la. daanaka am na combat yooyu daan na tafaakaan yi andi ko ba sama place daanaka man lu rafet laay wax ci moom mais sama doom la mais moom ñoom moom danoo xalaat sax da wax waxi tafaatin moom en tout cas ñoom nag ñoo ci waroon a jég gën a jekk ama parce que ñoom ñoo war a génn tey bu dee da ngaa bëgg a dugg ci buntu VIP ci VIP da ngaa war a jaar ci bunt bi te boo waree dugg tafaati la war a mën a may saas parce que xëj na moo ci dugg ci moom la ci benn booy juumloo ci VIP mais ñeneen ñi waruñu ko jël Lac de sax daa baax rek jël ko xam nga Lac de tafaatin ba mbërje maanaam ay nit ñuy defar làmb lanu parce que bu fekkoon ni ñeneen ñi ni ñeneen ñi lanu mel kon booy yi duñu bëre parce que Ama Baldé ñaa Niang Sa ay Garga Mbossé ba nu àgg dafa yàgg sax mais dañu leen a bloqué buntu làmb ji ba nu bëgg a magat fii mu tollu ko ci làmb ji gën a 40 te mbër bu njëkk boo xesee bëre grand combat rek ñaari grand combat ku ne nga mën a am ci làmb ji tey seen bi muy bëree Cheikh Mbaba ak bi muy bëree tafaage Gueye boobu li ñoom booy ñaar def defu ko Bombardier bi muy bëree ñoom Jallo ak ñoom Tafa Gueye boobu li booy ñaar ñi def defu ko. su ma la déggee xale yooyu gars yi dañ leen ragal wala. non promoteurs yi ñooy def loolu xam nga ne bu fekkoon ni Gaston mooy teg lam fii tey lii du am te Gaston wax na ko bu bu yàggul sax parce que mbër yi dañuy bëgg a laaj xaalis bu bëri ba noppi bëgg tànnal seen bopp adversaire bu fekkee ni sponsor bi dana tafaati nag amaa balde la bëgg ñu dem ci Ama Baldé mu ne eh, Sunjata Keita la bëgg wala keneen la bëgg kooku daanaka eh, lam nu muy demee sponsor bi day retiré wu parce que combat bi mu bëgg mënoo ko ko jox. parce que léegi promoteurs yi commandé tunu parce que ñeneen ñi fi nekk di teg combat yu mag yi ñu ci bëri xam nga du promoteur boo xoolee Abdou Fall ci nekk promoteur ak ñi mu boot mais ñeneen ñii di teg du nuy promoteur fee la ñuy jógee ak seen xaalis rek xamuñu làmb ji ni mu demee dikk dégg nit ki rek borom manipuler leen jubale leen ci combat boo xam ne jarul dara bu nu ko jëlee duñu leen sponsorisé bu nu ko tegee perte dootuñu dikk problème mu promoteur moo am mais Gaston bi mu fi teg ah. day dem ba sponsor ne ko mbër mii laa bëgg ak mbër mi loola lay visé mais yow mbër mi mënoo koo conditionné ci dara parce que bépp mbër boo xamante ne nii yow sa man man ak say supporter bu doon ni moom rek moom nga yaakaar mënoo fayeku sax lu mat 7 millions ku ko teg perte kon nag li sponsor yi bëgg moo war di compter. seen digganteeg Modou Lo nee nañ Luc Nicolaï bi mu doxee ama sottiwul dafa ñëw ci yéen loolu am na wala amul. ah ñëw na ci de mais ba mu ci ñëwee it. daanaka ba mu waxee it wax nañu ko la nu koy wax parce que boobu xam nañu ne ñun tegul tegul tafaat. xam ngeen ne lig tegul tafaat. di ko wax bi mu fayee prix ñu ne ko andi xaalis moom ca moom la dese xam nga tey bul teg sa combat comme. li nga wax maanaam fay na prix ngeen ni ko andi mu dem. combat bii nga bëgg taxaw nga fay mbër bi cent cinquante millions. ban mbër la fay cent cinquante millions. moo loolu la ñu ne moom la fay cent cinquante millions. fay Ama Baldé quatre-vingts millions. Ama Baldé laaj cent. moom mu di leen napp pour que maa ngi dox tafaatin rek foogoon ne ñu it bul nuy dox danuy gën ci presse bi naa ñu ngi nii mais dañu ko ne andi xaay bi parce que xam nañu ne tegul. ñun ñaata ngeen ko laaj. ñun lu ñun du ma la wax lu ko laaj. waaye ñun mootloo Lo bu nu naroon a bëre. ba nuy bëre nañu bu yàgg. Modou ba nuy dugg ci kalaaf. 20 millions la nu bëre moom kalaaf bi mu duggoon 15 millions la bëre. non 12 million la bëre sax. ñoom Moussa Dioum ñoo bëre woon 15 millions man galaaya sama kanam lay ñoo ko doon taxawal ñoo ñoom Jacques Diène balaa muy dugg ci gàllaa kombaam ak tafaatin dox nanu ko ba Tafatine daane taala gaynde mu daw ñu dugg ci gàllaa bi génn ñu dox combat ak Tafa mu daw bi mu daanee Oussa Pouy te bala gay daan ko ñu dox combat am ak Tafatine mu mu daw dem jëli Baye Mandione te boobu Baye Mandione Tafa ko gën a aju mais mbir mi nga xam ne yéen a bokk génération. nga koy wér-wér loo presque lu mat ba ngeen bëgga a magat nangu woo ko jël parce que xam nga ne yow mbër mu gàtt rek nga bëgg a bëreet loolu mënu la nekk ci làmb. ah mais su ma la déggee mu daw mu daw mu daw mu daw ça veut dire que mu dafa ragal tafaatin parce que li ngay wax mu daw bëri na de yaa 2006 ba tey. mais xam nga ne mbër bu fekkee ni da ngaa bëgg di bëreeg mbër yu gàtt rek. ah luy mu gàtt Modou mbër yëpp la bëreel pour man. ban mbër bu gudd la daal. ba bëriwul ak Bombardier bëreeg Balla Gaye bëreeg Gris Bordeaux. daan na Balla daan na ñoo ñu mbër yu njool lañu di daan. Gris Bordeaux daa gàtt. daa gàtt ndaama la moom boo gisee mu bëgg a jël Ama Baldé mooy xam nga yéen lépp làmb yi dafa bëri ay naafeq am na communicateur yu ko topp naa combat bi neex te prom communicateurs yi ñun dañuy toog ñoom xam nañu leen moo loolu nu faral. combat ñun ñi jon man man yow Ama Baldé taxaw ñu naa nanu ko may saas daaw ba léegi ah nga jël roi bëgg a bëreek moom mooy say adversaire nga daw. kon dafa daw tafaatin su ma la dégg. yow ba Balla bu doon loolu la du ak am du ko ñàkk parce que position bi taxawaatin taxaw foofu la Bombardier taxaw woon bi Balla Gaye daanee ki nekk tafaatin mais dafa forcé jël ko bu ko neexoon du jëla booy bu mu mën a daan daan ko ah. yow daal su ma la déggee kon muudu maanaam utkatu lu nooy la. non woon ne mber moo xam ne dañu ne dañu koo war a may saas nan lay bëree combat royal bu bu ko gaañee nekk roi roi boo xam ne bëree woog Balla Gaye bëree woog Gris bëree bëre woo kenn kan kon ban roi ngay nekkati kon roi gi ñu gën ko saboté di yow maanaam ah man de dama seetlu leen parce que pourtant nag nit ñi ne nañ Modou Lo mooy mbër mi sonal luur yi Modou Lo ak Ama Baldé ku ne xam na ne jotul parce que ba ko bala ngay daanee dañu ko wax ñu ne duñu ko jël agsiwut ci ñun bëgguñu ko mais ñoom bëgg ak foog ne mën nañoo conserver roi gi rek moo tax ñu jël Modou Lo mais nekkul leneen man xam naa seeni conseil ñoo xamante nii man du ma du ma waxantu moo tax muy wax wax a jël ama loolu maanaam pour yow waa parcelle lu yomb la ñuy wër. <laughs> yow loolu ñëpp xam nañu ko. parce que xal daanoon nañu ama mbapat. calcul nañu ne bi yoon mën nañu ko daanaat <laughs> loolu rek la loolu rek la te boo xoolee tey ama. man bu ma doon moom bu nu fayee Modou Lo cent cinquante millions fay cent cinquante millions man duma fa nekk sax di xeccoo loolu cent cinquante millions ku nu ko fay fay la yow quatre-vingts millions soixante-dix millions moom mu mën a ngemboo soixante-dix millions yi tollook yow yow nga bëgg a ngemboo vingt millions foo koy daane pourtant am na ñoo xam ñoo xam ne nañ ama maanaam dafa am ñoo xam ne dañ ne ama moom moo doon laaj combat bi kon ñu ko fay daa war a bëri kon yow xalaat lool bii ñoom bii ñoom laaj ama Ama ba muy laaj mooy ba ko Balla Gaye daane ñu bañ. kon Modou Lo moo laaj Ama nii. ñoo bëggu la bëreeg Bombardier bëggu ñoo bëreeg Balla Gaye bëggu ñoo bëreeg Tapha Tine ngir ko bëgg foog ne roi gi mën na leen a rek ñu laaj Ama euh, Babacar. nanu waxante dëgg lamb yi wér-wéraan yi ñoo bëri ñoom ñoo laaj Ama Ama Tapha Tine la préféré woon a bëreet. bi ku ne xam na ne seen promoteur la. ban promoteur seen promoteur. la. xaritam la ku ne xam na seen diggante ñoo propagande ba laaj ama mais lig moom lu mu xaritoo xaritoo du dugg ci ba xanaa laa foog mais mais dama la ne da ngay toll foo xamante nii gars yi bu nu la bëggee teg ne la yaay ruwaat toñ toñal la yow yaay tànn tànnal ci ñi nga xam ne da ngeen a bokk génération te mosu ngeen a bëre yow da nga jàpp ne kon su ma la déggee mbër mu gàtt kon ama amut sens pour daan Modou Lo làmb nanu ne giri la war a bëreet ñii ne ko daan na giri ñaari yoon combat booba neexut bala Gaye ñu ne du bëreeg moom parce que da koy daanaat tafaatin wóorul Lac de Guiers mat si ni la fay am te du ko daan ñoom ñu wàcc boog a jëli ci booy yi Bombardier mbàpp ba fay amaat mbàpp yi waaw mbaar mi <laughs> loolu mooy mooy mooy affaire bi maanaam yow su ma la dégg kon Ama Baldé amul maanaam bu bëre ak Modou amul sens bu mu daane Modou daal non am na sens bu mu daane Modou mais xam nga ñoom amaa mën na daan ku ne parce que mën na bëre te gaaw na am na gëm-gëm ah moo gën a wóor ci ñoom xam nga ku ne ci day am koo xam ne da nga koy ñemee normal am koo xam ne amoo ci yaakaar. kon tafaatin moom ñemewuñ ko amuñu ci moom yaakaar ñoom noonu nga bëgg a. tey bu fekkoon ni Modou Lo ñeme na ko ba nuy rawaas la nuy wax ba nuy bëree na nu ñaari yoon ah kan la nu bëree du ñaari yoon tafaatin bëree na ak balagay Gaye bëree ak Bombardier bëree ak Lac de ah. léegi moo Modou rek la bëree na. léegi mais léegi bu dul bu bu dul Modou Lo léegi du Ama léegi Tapha fu ngeen koy jëmale wala day defar année balance. taxawal la Tapha yàlla xam na ne ki yonent bi nit ñee ko sonnal sax waaye laajut Ama Baldé laajut parce que képp ku mu ci daan it dañ naa da ko ëpp doole rek ñoom ñaar ñëpp a ci moom. Tapha est-ce que mën na Tapha est-ce am na bëri bu daan Modou Lo. Tapha Tine Bombardier la war na bëreet wala Balla Gaye. Gris Bordeaux bokku ci Gris Bordeaux Gris Bordeaux man bëgguma ñu bëre sax waaye. ci ciy bañ non ñoom ñëpp dañu di samay xarit. ñu ah, nag mais sport la rek. ñu di samay booy. non ñoom xam nga tey nanu waxante li fi nekk ñoom bu nu bëggoon a bëre ba nuy bëre nanu xam nga ñoom ñoo dekk Medina ñoo bokk supporter ñoo bokk lépp ñoo bokk dekk ñoom dinañu bëre sax mais day dem boo lam boole leen dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw ba ñu ses. mais seen moom ak ak Tafa. Eumeu Sène it moo gaay yem rek. moo gaay yem rek. jon mbaa doo def li olof di wax ku raj jëmale sa kanam mu de yow ku ñu wax nga ne ñeme ñu tafa. mais loolu sa kanam la Eumeu Sène bu fekkoon ni ñeme na Balla moo loo du ko def li mu ko def bu doon ñeme na tafaatin parce que moom la war a bëreet waaye lii dal Ama Baldé rek li dal Modou Lo rek moo ko dal di weri foo xamante ne nii xalaat na ne mën na fa am dara mais Eumeu Sène xam nga ne jër waa kii ñu daan ko barki dem boo njaay nga gis fi koo xam ne mosoo bëreeg moom. taxaw dem di ko jëli xoolal na ko ca fekk xam nga da daanu am na daanu yooyu kenn du la ci yedd dinañu xam ne lañu ñu naa xàndoor bu dàmmee ci waar wàcc na dinañu xam ne loolu moo nekk mais am na daanu yooyu day doon daanuy gàcce. daanu ma seen bi noo ko tuddee yow ban daanu. lu mu doon parce que koo wax mu ne waru ci war a dugg koo bëreet 45 minutes mënoo ko daan possibilité bu ne nga am ko ci moom jël tànk bi yennu ba ca kaw teg fukki yoon ak juróom. coup yi mel ni mbàccam gerte ngay encaissé ba sa yaram yëpp yàqu ah quatre vingt di minutes loo mën a prouver mën nga ko ci prouver ba noppi mu yóbbu la ba nga xox mu daan la te yow gat gat màggee nga ko lu mat dix ans ngeen demaat lu mat cinq ans dooleem di yokk yow sa doole wàcc nga dem di ko jël loolu ku ku ku xalaat ku am xalaat sax yor staff loolu war nga ko def au moins mu man ci Tapha mu daan ko ñu ne da koo ëpp doole sax moo taane mais doo dem ci combat boobu da ngay xam ne ay moytoo tax nga jël combat boobu lambu gars yi dañoo war a bëree wante seen biir man bul foog ne dama far ak Tapha de man bu may far Tapha la ma koy wax dama ko koy wax entre nous mais man boo ñëwee éviter ma teg ma wallahi wal azim barke alxuraanul karim sama aqulaay taala laa lay wax parce que man dépassé naa sax di wax waxu far léegi damay damay ñëw léegi foofu la ñuy jeexale am na benn xale boo xam ne nii ne gaa yi dañ ko war a jël parce que yegg si na rëg-rëg ah rëg nu ko gars yi jële fu mu yegg si parce que ne nañ daan na giri waaw léegi garga mboose nag garga dañ ko war a jël taxawal maa la garga ñan ak ñan la daan bu yàggul daan na Moussa Ndour daanut Ancenas daan l'an 2000 daan Aliou Mané daan Moussa ah ñaata mbër la daan daan la grosse kañ la commencé daan ah ay moroomam yëpp la daan waaw te ñu bokk ci làmb la daan garga waaw guy gi lu tax ak si wut jëlunu ko daan Ama Balde daan sos daan ku ne nanu bàyyi bëgg jël mbër rek bëgg ko favoriser Reug Reug dëmb la fi nekk Gris 2 la fi daan ak Elton ñeneen ñi ñëpp ay mber lañu yoo xam ne visa lañu bëggoon ñu fay leen ñu daanu même Bombardier kaay fay ba ma daanu non maa ngi déggoon sa fan yi ñu naa Bombardier mu ngi naa Reug Reug bu bëggee ma may ko saas gis nga am lam ñun ñi ci nekk am na nu am na nu dégg de yàlla xam na ne Bombardier benn attaque ko dese ñaar bu bëggee bëreeg Reug Reug affaire la maaye ñun bu bu ko Reug Reug dooroon mu ne képp sax ñun duñu jaarukaayu kenn ñun man balaa ngay bëreeg ñun da ngay def lu leer nañ. kon tey xalaatu ngeen seen xel xalaatu lu bëri rek tafaati. billaahi wallaahi wal azim bu nu bëre woon tafaa ko mën fukki yoon ak juróom waaye nag gis nga erreur ba dal ci ci ci ci ci Ama Baldé moo dul amati billaahi bu daanoon Bombardier dara gis nga mbër léegi nak na xaman da am kenn mënul nax kenn gis nga si ñetta kayitam bi war a bëre kewel jël na Pape seen jël Saalum Saalum jël jël ak kii nu mu si booy bi Alioune Mané ñoom ñëpp da na daan waaye léegi làmb ji nit ñi dañoo yeewu daan mbër mu magat taxatut ñu gaa yi jël la de. kon fi mu dal bi yoon nooyut ci kéwél. ci mbel yu magat yi dadi la ñuy def ca suuf mën nañoo dig sax ne la kaay ma may la nga daan ma dem sa yoon pour bëreeg gaay yi. yooyu lu mën a am nañu bëre rek rek rek ak franc combat la dañoo war a bëre. mook franc mook paka la mook booy bii nii. Serigne Ndiaye numéro 2 ak mook Força Força mooy combat mais yii nu bëgg a def rek yëpp ay toñ-toñeel mbër mooy comme nii ñu bëgg a def ci Modou rek loolu yooyu yëpp mënu de mënu de de gondi nit ñi. kon Balla Gaye Boy Niang it àndoo ji. Balla Gaye Boy Niang ñor na xom Boy Niang dafa yàgg a bëre yàgg a def ay profam parce que dafa yàgg yàgg a bëre. léegi léegi fi ñuy jeexale sa école de lutte gis nañ fa tamit temps yi ñu ngi bëri macha allah ndam yi mbay a ngi nii toog mbay moom. temps yi maanaam loo yore école bi parce que mbay moom macha allah de gis nañ ay ndamam temps yi yaram bi daa tàng rek jër daa mel ni. a ah, mbay day moom xam nga mu ngi daan ci ay minutes lay daan booy ay moroomam ci minutes la nuy daane booy mbër yi nag li nu wuutee rek moom la xar yi wuutee ca daral ba xar yi nekk ca coogal ga nga am xam ne amuñu gét amuñu boroom saa yoo demee boo amee soixante mille soixante quinze mille am waaye yi am gët saa yoo demee boo déggee ñu naa la huit cent mille un million da nga xam ñi am gët la loolu rek mooy secret dafa nekk daa am gët non ñoom dañoo nekk xale nekk ci école de lutte ba dajoon am kilifa koo xam ne daanaka yàgg na ci yëf yi parce que làmb ñun li ñu ci xam li ñu ci xam daa bëriwul ñuy wax tey te xam te ñuy bëri na ñuy wax Bandia production defe naa yaa ko yoroon naa yaa njëkk a tëgg Balla Gaye grand combat. non man du pas gis nga ñi nga tin mii jur yàlla xam na ne yonent bi bi muy seetaan naa muy bëre mbapat bëre na aareen man may toog ci biir dañu ma doon meeb di yóbbaale ba may ànd ak mber aw ma fukki te booba ba léegi musuma bàyyi lam jàng naa bëre ba mën ko mu leer nañ ñoom xam na nu ko teg làmb nekk naa Bandia production yore nañu ko daanaka Gaston Mbengue rek nu jëkk ci làmb te bawol lañu commencé di teg ba fii yore écrit di encadrer ay mbër lépp ñaari yëpp yëpp côté yëpp dañuy ko maîtriser bu baax loolu tax yi gars yi def yëpp da ngay gis koo xamante ni tey tey mber mee koy may tur mu nekk ci télé bi talala te moom yàlla xam ne ne xamul sax lu lu lan mooy làmb xamu ci dara mais Babacar gars yi li ñuy def nii wallaay wal asim bu nu ko bàyyiwul làmb sponsor sax même sponsor yi sax fii mu tollu xaw na noo des waaye bëre warul am parce que kenn nangu a bëre ki nga war a bëreel. kontaan naa ci yow John. ok jërëjëf. ak ah, John de li ma lay wax ci moom fu nu tollu tey ci làmb rek ginnaaw yàlla ak yónnent bi moom la quoi parce que boo nu gisee niñ débuté ak fi nu toll tey lépp moom la moo nuy wutal suñ premier combat ba niñ bëree ay grand kon sant yàlla boole ci ak mu yëkkati xaaj bu bëri di ñu jox waaw ba yàlla def ñu toll fii tey te nga ne gars yi nañ ma jël nag ñu ngi wër-wër loole mais wiiri wiiri jaari ndaari ah. waaw.